ci ñaareelum pàcc mbir mi soxna Fall c'est tout de suite. Purchase a leash today at www.mykeys.com. fois laata ñu ñëw ci contenu bi dañu leen di nuyu dalal leen la deuxième équipe ñu tàmbale ko ci góor ñi à l'honneur aux hommes vu qu'il y a qu'un seul homme sur le plateau bonjour monsieur Thiam. bonjour Asma et bonjour à tous nos amis téléspectateurs soxna Fall maa ngi lay nuyu. fay naa la di nuyu Fatima ak euh, sama jàkkaat euh, Fama Ba. très bien en tout cas mi ngi doon Fatima Diop bonjour. bonjour Asma. ça fait longtemps na ma naa la. maa la raw bu baax a baax. C'est vrai que ça fait longtemps ça que gisante ñu ouais. ah j'espère que tu as passé un bon week-end. oui j'espère que ñi ñuy seetaan passé nañ week-end bu neex a neex di nuyu ñëpp di nuyu également Soxna Fall euh, Fama Ba mais également monsieur Thiam di leen jox rek euh, seen wàccuwaay ba ci kanam incha allah. incha allah rabbi Papoula. bonjour Asma. ça va et toi. gis nga rejoindre leen rek. comme d'habitude macha allah yéen ma subatel tamit. rejoindre leen moo tax nuyu naa la bu baax a baax nuyu tonton Thiam nuyu Soxna nuyu Fatima nuyu aussi nos amis fidèles téléspectateurs contente de vous rejoindre tout à l'heure rek ñu ñëw ci suñu rubrique musicale actualité. très bien ginnaaw loolu soxna Fall ñu àddu ci euh, contenu euh, actualité sportive bile. Mm. Euh, tàmbale ko ak foot amateur Oslo et AS Kolda champion. champion euh, Oslo mooy champion national 1 suñu xarit Moustapha Seck ak euh, le président Youssouf Fall euh, nekk fa di def liggéey bu am solo ñu leen di féliciter ah Oslo kon mooy champion bi ginnaaw ba mu daanee ñi di waa Walidane bu Thiès waaye tam ay Skolda tam Yaya Balde tam nekk suñu xarit mooy président ba di ko féliciter moom itam di ko wax bonne continuation moo nekk rek li nga xam ne mooy champion national 2 démb lañ ko doon amal ca Tambacounda ñu décentralisé ba tax na ki nga xam ne mooy njiitu fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor yi yàbbi ci wàllu woowe waaye itam waxtaane waat li nga xam ne moo jëm ci wàllu infrastructure ak jéego yi ñu def foofee ca Tamba ngir jëmmal boobi euh, final waaye itam duñu fàtte monsieur Abdoulaye saw mi nga xam ne mooy président ligue amateur moom itam mu ci def liggéey bu amul solo ñu teewlu maître Augustin Senghor Nous félicitons aussi l'ensemble des acteurs du football amateur. Nous avons à peu près plus de 200 clubs qui ont tous joué aujourd'hui cette saison euh, un peu partout, avec les deux championnats de National 1 et de National 2, mais aussi au niveau des ligues régionales. Les compétitions sont tenues régulièrement. C'est l'occasion aussi de féliciter les ligues régionales pour le travail qu'ils font pour le compte de la fédération et dire que jamais euh, à, mon, à mon avis, nous n'avions eu, eu, autant de vitalité dans le football sénégalais. Euh, dans les étages supérieurs, vous le savez, la Ligue professionnelle est en train de boucler sa saison. Nous sommes à trois journées. C'est l'incertitude, un peu moins d'ailleurs euh, en haut qu'en bas. Mais toujours est-il que c'est des matchs disputés. Mais aussi, le football amateur montre aujourd'hui que le nivellement se fait certes par le haut, mais c'est les équipes qui sont à la base qui sont en train de monter leur niveau. Les meilleurs joueurs très souvent qu'on voit en national amateur peuvent aisément jouer en ligue professionnelle. Et donc ça aussi, c'est le football sénégalais qui gagne. Et j'espère qu'on va continuer ainsi. Je félicite euh, aussi au, à la fin de cette saison l'ensemble des acteurs de ce football-là. Les dirigeants qui travaillent dans l'homme, la presse. Euh, les footballeurs essentiellement. En venant ici, nous avons tenu à apporter notre euh, contribution en dotant euh, donc euh, le stade euh, Babacar Diop, c'est ça, donc de, de Tamba de siège au niveau de sa tribune euh, euh, principale. Donc, euh, et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est étape par étape que nous y irons. les infrastructures, l'État est en train d'y travailler. Le président a donné des directives très, très, très, très, très claires à, à, à ce niveau-là. Et il a chargé donc le, notre tutelle de faire l'inventaire de toutes les euh, infrastructures dans tout le pays. Et aujourd'hui, je pense que très bientôt, ces préoccupations des acteurs du football, mais aussi des autres sports, seront prises en compte par l'État. Parce que plus que jamais, l'État, je pense, a conscience que aider le sport, aider le football, c'est aider la jeunesse sénégalaise, c'est aider aussi euh, les Sénégalais qui sont férus de sport et de football. Aïcha mi ngi doon ci yàlla boobu je ne te le fais pas dire waaye kilifa yaa ngi liggéey soxna Fall bu baax a baax. c'est très important. Mm-hmm. dañ leen di wax bon vent Ligue 1 ci la ñuy àddu TFC euh, et Pikine euh, qui chute. chute nañu loole sax moo indi le Pikine mu jugee ci ñaareelu place bi mu nekkoon génération foot bi nga xam ne dafa def un bon une bonne opération moo laa di dikk ci ñaareelu place boobu Tëngéej ba tey mooy wéy euh, di jiice waaye moom itam dafa rek euh, daanu ci bëccëg bi Tëngéej nag ki ko daan mooy US euh, gore US Gorée waxoon naa leen fii depuis le début de ce championnat jugewul ci zone de relégation bi mais ñi ngi seetlu mi ngi def des pas en avant pour sortir d cette zone de bi à zéro ki amaat ndam keneen ku ne ci suuf mooy ñaari tali mi daan CNEPS ñett ci euh, benn waaye tam Mbour Petite Côte daan Casa Sport un but à zéro Ndiambour moom di gën a rek naxmeelu suuxu bu baax Dakar Sacré-Cœur daan ko 4 euh, à 1 mooy match bi ëpp ay but Stade mbuur ak Douane dañoo nul benn ak benn Jaraaf fekki ay Pikine biir Alassane Djigo daal di koy euh, daan deux buts à zéro bu dee Ligue 2 bi moom Linguère jamono Fatick daan ne retarder lii di Euh, Montem ndax dafa nul ak moom 0-0 euh, ci jamono jooju waaye tamit euh, moom naam yéeg na ba noppi mais dafa daanu ci bëccëg bi ci kanamu Sonacos 2 buts à tey la ñuy àggale ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg bi diggante Africa Promo Foot ak Kër Madior loolee 17h la ñu ko jàpp mu di derbi Thiessois ci rek stade Maniang Soumaré bu Thiès lay daal di xewee. i nga wax Tafa le philosophe décortique euh, match bi amoon diggante jaraaf ak Pikine. ci ndamu jaraaf bi deux bi à zéro ci kanamu AS Pikine naka la ñu doxandalee naka la ñuy joué suñu espère chaque fois chaque journée mu dikkaat tànn benn match kon match AS Pikine jaraaf la daal di tànn Tafa le philosophe. match bu rythmé match bu technique match bu tactique bi euh, jaraaf di joué 4-3-3. donc ñaar dispositif yi bokkuñu ñu gis ci euh, ci quatorze minutes AS Pikine jël na ki deux buts deux buts yoo xamante nii mën naa ni mënoon naa ñàkk tax mënoon naa ñàkk mooy équipe équipe da ngay préserver sa équilibre lu am solo la soo xoolee ñaari bi di njël yëpp ay perte de la te football boo yoree bal bi di joué da war a xalaat boo ko pertee après moo tax équipe da nga ko war a équilibré aussi Jaraaf comprendre nañ ni dans le football moderne il faut anticiper la perte ou la récupération pour avoir toujours un temps d'avance loolu dafa am solo ñu gis tamit jaraaf ñëw def benn pressing stratégie mel ni ku ragal AS Pikine c'est-à-dire ñëw nañ tànn benn zone bu préférentielle boo xam ni heure bu Pikine développé seen jeu ba yegg si foofu rek dañuy xeex ak ñoom récupérer ballon yi def seen transition rapide def nañ ko réussir nañ ko deuxième méthode bi aussi ñu gis AS Pikine ñëwaat ak beneen xar kanam mais seen animation offensive bi ba léegi dafay des parce que seen attaquant pointe bi fi mu war a taxaw dafa taxaw à chaque fois dafay nekk en retard donc loolu aussi euh, mën naa ni euh, dafay xew ci match Pikine yu bari dafay xew ci ay match Pikine yu bari parce que seen animation offensive à chaque fois fi ñu bëgg a terminer seen action dafa fekk attaquant de pointe bi parce que à chaque fois dafay di participer ci jeu bi te football des fois il faut nga xaar ñu defaral la il faut nga xaar ñu defaral la pour nga mën a am finition après beneen bi mooy damay expliquer à chaque fois. seeni pressing dafay retard seen pressing dafay retard parce que pressing benn du ko def benn nit mën na ko déclencher mais benn du ko def kooku di ko déclencher kooku mooy starter bi mais kooku heure bu ko déclencher lan la ñu war a def mooy dañu war a dem récupérer ballon bi. mi ngook ginnaaw tafalu philosophe ñu àddu ci Edouard Mendy moom honoré au Ghana performance la suñu ay doom fu ñuy nekk di def ay jéego day rafet ñu di ko wane di ko tudd ñoom nag moom la ñu tànn mu nekk meilleur joueur africain moom Edouard euh, Mendy li ko waral nag ñu fàttali leen ni Edouard Mendy def une saison impressionnante ak Chelsea gàddu li nga xam ne mooy Ligue des champions africaine dañ ko récompenser rek ci seen troisième édition bi nga xam ne amal nañu ko Edouard nag s'est exprimé mais en anglais mais ñu xool ko rek ci li nga xam ne mooy euh, mbébétam ñu tekki li mu wax euh, kontante ak euh, li nga xam ne da ko yokk source de motivation lay doon ci moom mu gën a liggéey ndaxte ay échéance ngi suñu kanam nouvelle saison day am waaye tam Sénégal mi ngi war a rek jëm jëmmal jongante ji éliminatoire coupe du monde waaye tam coupe d'Afrique des nations mi ngi ci suñu kanam ñu war koo rek daal di doxal but ci choqueur la ni àddu stage bi ngir waajal coupe du monde bay am ca Russie du 19 au 29 lay ñoom ñu amal beneen stage ngir amal seen wàccaay waaye itam tey tey itam la ñuy amal tirage yu Ligue des champions féminine mu di pas bu am solo bu ngande ci wàllu football féminin ndaxte indi woon naa fi kaf ak FIFA seen stratégie ñuy teg ngir jëmmal lu jëm ci foot féminin bi loolee nag ma ngay amee foofee ca Côte d'Ivoire. Aïcha euro ak COPPA euh, moom la ñuy addu COPPA américain le programme soxna fa voilà ñu àddu ci rek kon COPPA bi tey jilee rek kon ci guddi gi dinañu ko daal di door demi-finale yi diggante Brésil ak euh, Pérou lay doon waaye itam Argentine ak Colombie ñoom itam dinañu ci jongante bu fekkee ne li jëm ci wàllu euro bi la choc war a dox ci diggante Italie ak euh, Espagne waaye Angleterre tam war a jon jongante ak euh, Danemark kon ñuy xaar match yoo xamante ni si dina rek euh, métti ndax ci ci dernier virage bi la ñu ci tournant bu mujj bi ngir wutali lu jëm ci final yi. mi nga ko basketball coupe du monde u la suite sax na U19 Asma Khadija. voilà <laughs> <laughs> voilà c'est ça kon U19 yi ña nga foofee ca Lituanie match bi war a départager ñaari équipe yoo xam ne ku ci nekk rek gagné nga sa moroma affiche yu demi-finale yi nag ci basket ba tey nii lay tëddee ci wàllu jigéen ñi GIA ak Duc lay doon ISEG Sport ak Ville de Dakar bu dee góor ñi Louga basket club ak GIA kon ñoo ci laale waaye Duc ak ki war a jëndam li ci diggante Douane Douane ak Saint-Louis Basket Club ñoo ci war a laale ñu jeexal rek ak wàllu rugby ak Africa Cup succès historique bu Sénégal mi nga xam ne moom dafa daan Kenya avant à dix-neuf seen match bu njëkk waaye U20 yi ñoom ci wàllu rugby seen compétition seen apprentissage plutôt métti na woon trop ndaxte jóge nañ ci compétition bi ak défaite yu métti lañ ca daal di jëlee ndaxte cinquante à trois la leen rek Kenya door ñii di Madagascar door leen 34 à 3 kon ñu ngi xaar final bi ci diggante Madagascar ak Kenya Asma Khadija ngir ñu rek disputer li nga xam ne mooy titre bi. macha allah on leur souhaite en tout cas bon vent et bonne chance. merci à vous. mi ngi ko tàggat yaram bi fii la ñu koy ndar képpé Soxna Fall qui reste en notre compagnie merci euh, pour cette actualité cette remise à niveau. <laughs> Ah, dafay baax bu du woon loolu Fama Ba daf may xaw a tànn te bëgguma lool man ak moom comme euh, doomu nijaay doomu bàjjen ah mu neex léegi-léegi comme li ñu naan chien et chat. Tom et Jerry. voilà. on ne se quitte pas. mais on n'est pas ensemble. Oui. et quand quelqu'un nous attaque ou attaque l'un d'entre nous on t'attaque. tout à waaw Marane ak Birane Marane ak Birane on a le même caractère loola tax Aïcha mi ngi noonu bu ñu jógee ci Soxna Fall ñu àddu nag ci immobilier euh, jox la ngeen yi euh, Serigne Modou Mbacké Thiam ngir mu doxal ñu dalal ko.